fee de sa fit wi ma indi fii tey maa ngi yóbbante nuyoo di gërëm di delloo njukkel waa kër maam du Baro Ndiéguène yi nga xamante ni nii ñoom ñoo fi dalal maam Cheikh Ibrahima Fall

di sëriñu sëriñ Cheikh Assane Fall kooku mooy royukaay sëriñ Assane Kane borom nafsu maa ngi leen wax ni ndikkal gi ñooñ laa koy delloo ngir ñooñoo tax maam Ablaye Fall Ndar sanc ndar gii ma taxaw di gërëm njabootu seex Mor Waxa sëtu Serigne Modou Kan ñi fi teew fii nag dama fay woote askan wi laa fi woo li ma woote nag mag ñii ñoo ci ànd madame la maire jigéen ju man góor sama bàjjan yaa ngi may yaa ma ñi meloo yaa tax ma xool jigéen ñi sama sëriñ yaa ma digal ni taalibam doxe sama waa ji nag di taala billahi wallahi nitu yàlla dëgg a sëriñ fàlloo gi nii kooku luñ ci dogu day am di sama nijaay samay goroo ngi nii fure lu ma ne ñu nekk samay soxna bu du woon ñoom bu ma jàppalewul woon du taxaw fii samay wëllëree bàyyi cheminot ñu ngi nii yéen nag dangeen di samay ndey di samay mag di samay jigéen di sama lépp li ma leen bëgg a leeral mooy yéen mbootaay yi damaa wëlbatiku boot leen man mbootaay mbootaay maa leen boot tey moo ma ñor ba may jàng la ma tollooloon ak samay moroom dama ci doon bañ la ma mënuloon samay moroom ci samay association yu ma daan ànd ak ñoom ndimbal muy fii di ca réew muy fii di ca réew te feneen fu ma ne fu ne loolu laay dëkke ba may jàng damaa seet science bi nga xamante ni nii moo jigee askan wi muy sociologie ma bàyyi fa civilisation esclave ba ma doon def ñëw dem seeti la sociologie parce que mooy science bi nga xam ni mooy étudier askan wi mooy société bi mooy yéen ñi tey ma dee leen xamal ni li ma soxla li ma bëgg li ma yéene moo di def social ba keroog ma fiy jóge looloo tax tax bi ma ñëwee fii politique gu ma bi ma ñëwee fii politique ma damaa ñëw fekk samay ndey ñu toog président Talla Sylla indi fii ay ambassadeur ñu bëgg a jàppale gox bi ma ni balaa doomu Palestine des man ma def ca laa jële cinquante pour cent engagement pour dimbali jigéen ñi këri kaw ma ñëw fi ma dëkk muy Ndar gii jigéen ñi bëgg a liggéey ma yëkkati financement jox leen te ñu te des na ma dem ba jàkkay saasu na jigéen ñi soxla ma yëkkati jox leen ma dem ca hôpital ba ca hôpital ba ñu wax ma ni ma te la ma fa yóbbu woon sama mag sama cousin moom mooy président ba xam sama jikko moo tax teelu ma koo wax ba mu ñëwee ñi ma nan daje ci hôpital ba mu ñëw toog lu ma njëkk a wax dani ni ma maire bi nga xam ni moo doon joxe subvention bi danoo wax ni six cent mille lanu am te ren jii duñ ko amatu wala day wàññeeku ñu ni maire bi nga xam ne mooy ville bi muy Talla Sylla ba mu leen joxee jox na leen huit cent mille man kenn du ma jam naa ni man kenn du ma jam naa ni li ñëpp moom ñu tey cox six cent mille di jox di leen jox Talla Sylla dëkkul Thiès Nord bu yëkkatee huit cent mille jox ko man nag ma kenn du ma jam naa ni taala damaa jamoon ma yëkkati un million ñu du di leen wax ni leen ay see bu taxaw bu ma laajee ma jox ko dama leen wax tey ñi leen li ma yëkkati mooy ndimbal ndax damay def su ma liggéeyee ba am li ma am ba weeru dee damay jël jox samay waajur seeni wàccaay ba pare la ca def ma def ko ci askan bi li ma bëggoon a wax nag amet wax na ko dama bëgg bis ni ko tey zone nord waa jaxaw gis naa leen fii ñu may dégg waa caalim ñi ngi fi quartier yëpp ñi ngi fi ma deel di leen xamal ñi leen ñun askan wi lan wax askan wi am ndam lu mën a nekk la ndamu askan wi nag mënul jóge fulul ci askan wi moo tax bu ngeen gisee tey ñu woote dañ leen a bëgg a xamal ñi leen jigéen ñi doon wax leget bi ana leget bi ci la ñuy mooñ day law lu ngeen def ci leget lu ngeen def ci leget ñëpp xalaat nan ko waaye xam nga lu jara xalaat tey cin li ndax lu pare rek lañ cin lii li ci nekk xam nga buñ ko yàqee xéewal la kon nanu xalaat cin li bis askan wi na xalaat cin li kuy dimbale askan wi ku nekk nay xalaat cin li ma di leen wax ni leen ñun danoo wax askan wi am na ñu ni bokk yaakaar danoo bennoo bokk yaakaar am ñu mànkoo wattu senegaal ma ni leen sama yuuxu bi tey ñëpp a xam ni yaakaar tas na ci marché ngelaw bii kon ku ni da ngay mànkoo di ko wattu woo lu baax kon na askanu taxaw jël seen meey jox ñu jumtukaay yi war ñu defar marché ngelaw Serigne Boubacar wax na ko dañ koo dénkaane ndax am na fu doon jaar defe ni doon defe Talla maire Ousmane maire waaye danoo mel ni kuy dem jàkka dangay ngay sellal da laab dox dem ci diggante bi ñi ma wax luy yàq sa njaamu yàlla ba tax na bu sellalee boo duggee ci biir jàkka ji dan fa am yaakaar la fay def dan ñaan dina nangu sag jaamu yàlla kon looloo tax ñu ni pour dem ca mairie ba ak pour dem ca assemblée ba danoo war a sellal génn ci lépp ànd ak askan wi di ko dox di ko wax di ko lijjanti di teg ay pexe ba dugg ca néegu askano wa muy assemblée nationale ak ci mairie su ko defee bu nu laabalee ba ànd ak yéen ba foofu kon lan fay def ñoo koy defandoo kon xel dafay dal noonu lañ ko bëgg a defee looloo tax ñu jël ndox wii ñu jël ñun jëluñu ñàllu ji yoonu askan wi leen jël ma di leen wax ni leen fii ci zone nord di cees nord terrain bu yëggul bii ci marché ngelaw yaakaar tas na fa te ku ni danga koy wattu wattu woon lu baax ku jege fii di dem Medina Fall yenn heure yi la ñuy jóg pour duy ndox ñu ni loolu yaakaar am na fa bennoo nanu waaye yaakaar tas na mel na faal waaye kon ku ni da ngay wattu bennoo wattu loolu wattum ndox mu ñàkk baaxut xanaa kay nan wattu seeni kër yi baax ak seeni oto baax waaye wattuwuñu loo xam ne baax na ci zone bi loolu tax na ñu woote pour ñu jóg ci ma di leen wax ni leen diggante Escale romb kër Maam El Hadj ngent taaxi kaw kaw sarafal jaxaw ñëw def ab conduire mu yegsi ba ci àll bi nga bàyyi ko muy def inondation ba ku bëgg a jóge ci quartier bi bëgg a dem ci say dëkkandoo yi sa ginnaaw dan naan lu wiiril nga def loolu wattu ko baaxu bennoo nanu waaye yaakaar tas na foofu kon askan wee war a jóg taxaw ci digg bi faj ko moo tax ngir war a jël lépp delloo jumtukaay yooyu askan wi ñu am yéene ak doole yi defar ko ma di leen wax ni leen ku fi jóg tey yéen a ko dooleel yéen jigéen ñi koo wax mu ni sànnil naa carte Senghor koo wax mun la sànnil naa carte Abdou Diouf koo wax mun la sànnil naa kart Macky Sall koo wax mu ni sànnil naa carte Ablaye Wade effectivement da ngeen ko doon sànni ndax gisuleen seen bopp loo sànni ca mbalit ma ak loo sànni ca àll ba mënatoo cee jox kon nag bu leen ko sànneeti damaa bëgg ngeen jël ko jox ñu ko ñun askan wi waaye nag dafa fekk tey li ngeen doon jooy ci wàllu Thiès Nord man damaa fas yéene taxaw taxawaay boo bis ni ko man maay seen mbër bi samp lu ngeen manqué ci kilifa koñ boo xamante nii bu am député bu am ministre bu am directeur général nduróowu te koñ bu ko amut kon war ngeen a jël lépp jox ñu ko sànni xëy na jox leen ko askan wi ma dee leen wax ni leen nag fii ci cees damaa déggoo ñu ni ngóor si rek la ngóor si rek la ñu leen lu ngóor si def ba boo génnee fee dañ lay xas ni leen daa mel ni yéen ngóor si dafa mel ni yéen ngóor si dafa leen yeew ci buumu jaam ngóor si mënatul a dem ngor si mënatu la dem ndax mënul gañe mënatu la gane Thiès xaw ma yeneen jamono le waaye yi na ngor si mënul gañe bureau de vote ca Ndar si mënul gañe bureau ca ca saint si mënul gañe bureau ca Casamance si mënul dem Ndakaaru gañe fa Khalifa Sall ngor si mënul dem Touba gañe fa ngor si mënul dem Mbacké gañe fa kon ngóor si fii mu amoon néew wan leen ginnaaw buñ ko falee mu dem toog musu leen a xam ñuy wax lu ne duñ ci gis da seen bopp kon tey ngóor soosu tey nan jàpp ni bu doon danaa am fukk fii xaaj lay am bu fekkente ni nag moom xam na loolu tax xam na ko nag xam na ko waaye nag boo xamee ni yow dangaa am jàngoro gu la tee dem da ngay am ngoro wax ko libéré ni ñi dafa war a libéré ceesuwaay yi nga xam ni moo leen tànk takkoon ci buumu njaam bi nag seen doom am na fulla am na fayda bu njaam googu tey laay dagg fii tey yàlla jël leer bu musta melax dolli ko bi ñambaas lañ ko duppee soo ko ubbee Barsan yaa bi ndax Barsan lañu ñu tudd lu jëm ci sunu yonent bu tedd ba sallallahu alayhi wa usmaan Ousmane ku ko xam xam ne saa yoo ko woowee téléphone buy wuy dafa naan barki sëñ Touba allo te ñépp xam ne ni sëriñ Touba mooy xaadimu rasul kon yaakaar naa ni ni ngeen ubbee woote bi noonu la kon ñuy bokk di nuyu ñépp di nuyu kilifa diine yi fi nekk te duma leen xàjjale sax ci wàllu tarixa ngir ñépp xam nañ ni kilifa yi fi nekk li ñu sàkku ci ñépp mooy wane ni diine ji benn renforcer diggante yi ah dooleel lislaam te yaakaar naa ni tey kër goo ci dem loolu lañ fa woote kon sa jataay bi nga woo ñépp yaakaar naa ni lu rafet la ah di nuyu Serigne Saliou Bousso mi nga xam ne mooy vice président fal askan wi jógee ba Mbacké ñëw ngir digganteem ak Ousmane di nuyu ah jàmbaaru jigéen ñi di madame Maymouna Dieng présidente nationale des femmes de Palestine di nuyu usmaan ñépp ñi nga xam ne woo nga leen ndax cër boo leen jox ak fuñ la manti féete xam naa ni jël nga sa mbootu boot mbootaay yi waaye bu soobee yàlla dañ leen rogant jamono bi ñu toll dafa doon étape bu bees ci suñu taxawaay ci Sénégal amoon na ay jamono ñu daan yëngatu ci li ñuy tuddee parti politique ñu dem ba gis ne parti naam am na solo ndax am na conquête yu bëri yu am ci Sénégal yoo xam ne ña jiite woon ci ay parti politique lañ nekk mais parti ni ñu ko tuddee ci wolof mooy langue maanaam péete la mu mel ne dañ naan langue gi féete nii ak langue nga féete ne boo nekkee ci làng gi ñeneen ñi bokkatu leen fu ngeen nekk mu mel ne luy dàq nit la ñu ni nañ dem ba woote lu gën a yaatu parti gën a yaatu coalition de parti politique muy mouvement mais mouvement boo xam ne la koy tax a jóg dootul sàmba du Demba du Ayda waaye Samba Demba ak Ayda ak ñépp li mel na ñoom la maanaam askan wi ndax xam nañu ne réew rawatina bu Sénégal day wéeru ci ay yoon maanaam constitution mooy ba ca gën a mag constitution wu Sénégal moo tënk lii may wax nii moo ne sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane wala mu doxalal ko boppam ci référendum waaye la mu ca teg dafa am solo lool amul benn pàcc ci réew mi wala benn doomu aadama ci réew mi bu mën a aaki moo sañ-sañ boobu kon bu ñu waxee fal askan wi c'est en réalité aller vers la réhabilitation de la souveraineté du peuple la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté boobaak léegi ñuy gis ne askan wi dina fal nit te du faale askan wi fal askan wi du jël askan wi yépp teg ci benn fauteuil fauteuil boobu amul fal askan wi mooy faale askan wi faale askan wi mooy xam ay yitteem xam ay yitteem te ci taxaw di jaamu soxla yooyu nekk bàyyi faalu askan wi surga askan wi jamono boobu moo jot c'est pourquoi j'ai dit que le Sénégal entre en révolution bu nit ñi déggee nag baatu révolution toujours dañuy defe ne affaire violence la wala ay ay insurrection wala yu mel noonu du loolu la révolution c'est un mouvement qui met en branle d'énormes masses humaines qui prennent en charge leur propre destin Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mooy wax ni boo nekkee ci réew mu mel ne Sénégal politique mel ne picc yu daje te xiif mu am saaku dugub bu ne ca kaw nee na picc bu naaw du àgg ndax li mu xiif ñun nañ dajale dunq yi seet benn picc bu sant jaxate ñu ne ko boo naawee ba ci saaku bi na ko bëtt pepp mi ruus ñépp bokk lekk mu naaw ba ci saaku bi au lieu mu bëtt ko Serigne seex nee na ci toog ci kaw di lekkal ba ko mais loolu suñ la ko defee benn yoon def la ko ñaar yoon def la ko ñetti yoon mais am nga sañ-sañu nag téye sa dunq ndax doo ñàkk dunq ñàkk pepp ci fulla la bokk am de foofu nag lañ toll moo tax ñu ni askan wi ci seen bopp nañu wëlbatiku fal seen bopp te ñi nga xam ne ñoom laa nekkandool di yëngatu ci kuréel bi ñu tuddee fal askan wi parce que ñaari fal askan wi am benn bi kuréel gi la maanaam jëmm ci beneen bi jëf ji la maanaam action bi maanaam tey boo fal askan wi ñu ne am na kuréel buñ ne taal si laa ko jiite mu tudd fal askan wi mën na am kon soo nee fal askan wi mën na am kuréel bi ngay wax mais soo nee fal askan wi mën na aussi jëf ji la ñuy wax mooy nañu jóg ñu fal askan wi xam nga kon ñaar yooyu danga leen di lënkale ndax soo nee fal askan wi fal bi F la askan bi A la tàmbalee U bi da double V tàmbalee boo ko boolee faw la faw nag dafa am ñaari faw faw bu njëkk bi mooy munta ñàkk ñaareelu faaw bi mooy ba abadan moo tax ma ni leen faw fal askan wi fal askan wi ba faw ndax loolu mooy tax nit ñi jotaat seen gëdd jigéen ñi jotaat seen gëdd xale yi jotaat seen gëddë mag ñi jotaat seen gëdd ñépp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk peuple senegal ñu nga taxaw ci taxawaay boo xam ne képp ku ñu dénkati lu mu manti doon ak niveau bu mu manti doon nga xam ne seen surga nga askan wi mooy sa njaat gi nit nag mën naa bokk réew mi bokk ci nit mën naa bokk APR bokk ci mën naa bokk PDS bokk ci mën naa bokk LD bokk ci mën naa bokk ci yeneen parti bokk ci mën naa bokk ci ay kuréelu société civile bokk ci mën naa bañ a bokk ci benn ci yooyu ba pare bokk ci biir ndax li am solo mooy ñëpp bokk d'accord ne comme askan wi moom moom sañ-sañ bi képp koo xam ne dénk na la yëfam yow surga nga te mooy sa njaati gi maanaam culture boobu culture service nga xam ne soxlaatuñu nit koo xam dañ lay fal nga nekk buur mësuma nangu ko ma ne boroom Thiès jataay bu ma dem suñ ma ko présenté borom Thiès ma dindi ko ba mu set ngir la ngir waa Thiès askanu Thiès ñoom moom Thiès maire Thiès moomul Thiès président la république moomul Sénégal ku ñu fal nga jiite département moomuloo département bi ay surga lañu maanaam askan wi moo ñu dénk lim moom te bis bu ko roccee kenn dootu la tuddee loolu kon moomoo ko Senghor a fi njëkk nekk maire anam kan moo ko tuddeeti borom Thiès Ousmane Ngoma ca topp kan moo ko tuddeeti Amadou Wagee ci topp kan moo ko tuddeeti Pape Ali Ndaw ci topp kan moo ko tuddeeti ah Moustapha Ndiaye ci topp ku ko tuddeeti Idrissa Seck moo ko tudd moo ci toppoon ku ko tuddeeti tey maa fi nekk bu ëllëgee dinañ toog bis kenn dootuma ko wax amul werante kon loolooy dëgg mais li nga xam ne moo wéy mais même bu fekkee ni ci biir peuple bi tey ñii ñoo fi ne beneen yoon ñeneen ne fi ndax ñi fi nekkoon di voté ba ñu doog am indépendance du ñoo fi ne tey di voté xëy na am na ñu fi desandi bu ëllëgee tamit dina am ñoo xam ne ñeneen ñu bees ñuy ñëw am na ñu juddoogul sax et fii ak diir dana nekk vote yoo xam ne xëy na ñoo cee gën a bëri mais ñooñu la ñuy tuddee askan wi ñooñu la ñuy tuddee le peuple en démocratie mais ñooñu ñoom moom yëf yi kon yow moomoo leen yow dañ laa dénk culture boobu laa bëgg ñu répandre ko nga xam ne quelque que soit nit ki engagement politique am voire même engagement politicien quel que soit cadre bi muy évoluer nga xam ne bu demee ba gëm culture boobu xam ne yëf yi nit ñee ko moom bu boobaa ñoo far mais far bi dafay doon beneen façon far loolu moo tax ma doon wax sama gaa yi ne leen damaa bëgg ngeen boole patience ak indulgence nga xam ne dal gi da ci war a ànd parce que bu ci àndulee xuloo rek la ñuy dëkkee xastante lañuy dëkke werante la ñuy dëkkee te waa askan wi dañoo maar ci loolu li nga xam ne moo nu war mooy nit danañu wax lu dul noonu jéggal leen ko nañu moomee jéllale ak jéggale naka suñu kilifa yu baax yi daan defe nanu moomee dal ndax lan ndax ñun ñoo féeteeg dëgg te lu mu yàgg-yàgg dëgg mooy gañ Sëriñ Tuubaa dafa ni boo nekkee ci dëgg nee na bu ci ragal wéet te bu ragal wéet ba wéttini koo tappale te dëgg sëñ ah, sëñ Abdoulaye da daan wax ne ku ci xeluwul ñëw di nga xelu ñëw yëfi askan wii nag ku ci xeluwul ñëw di nga xelu ñëw ndax lan ndax góor gee fi newoon dem na am déet te Ousmane léegi nee na ngóor si dematul kon lu fi des du gor si waaw jamonoy gor si moo jot waxuma diw la nag maanaam jamonoy ku ñu tànn nga gore waaw maanaam jamonoy gor si moo jot loolu nag lañu ñu war a yaatal ba mu yaatu buñ la dénkee lu ñëpp bokk nga gore ci tey ci sama wàllu bopp liñ ma dénkandi ab mairie la nit ñi la nga xam ne moom lañ koy liggéeyee ñoo ko moom ñu bokk ci nag mais lañ ci am wàll lu néew la saa yi ñu manee lijjanti xéewal mu génn dañ koy def waaye pour mu dem ci nit ñi ndax suñu jógee ñu yëkkati carburant teg ko suñu loxo au même moment sapeur yi soxla carburant dañ leen koy jox suñu jógee handicapé yi soxla dañ leen koy jox suñu jógee mu am soxna yi soxla dañ leen koy jox ngir lan ngir ñun mën nañoo débrouiller te xëy na ñoom mënuñu ko ndax nit dina toll ci diggante boo xam ne maanaam ko ko war a ka yaakaar rek la jëm mais ñun parfois nit ñëw yaakaar ni te fekk du ñu yor man mën naa toog liggéey te chaque jour bu may liggéey ñaari dërëm du ne sama te dinaa liggéey ngir lan ngir man maa engagé wu liggéeyal leen kon du ma leen daw duma leen tëju boo nekkee nag di liggéey di liggéeyal askan wi wala dëj am nga nekk ci armée di enterré wala yu mel noonu ku la woo du la jot mais ku ma bàyyi message dinaa la woo ñi ma yab dinaa leen woo guddi wala suba teel ñi ma yabul waxtu bu amee bunt rek ma woole bu fekkee ne dañ ne jamono bi maire a fi ne moom lañu bëgg a jot pour wax ci liggéeyu dëkk bi lu mu sori sori juróom-benn weeri jataay bi dana am bu fekkee ne lu personnel la soxla woo dem maire demal fa ma dëkk boo demee fa ma dëkk dinaa yëg ne ñëw nga fa su ma fa yëgee bu ma ko yëgee danaa fexe ba jokkoo ak su fekkee da nga ñëw di ma laaj lu ma amul soo ñëwee laaj ma lu ma amul dinaa la ni ah man li ma am aw ma soxoru bañ koo joxe waaye li ma amul aw ma mbaaxu joxe ko parce que amuma ko yow mi ñëw di ma laaj yow yow yaay la meilleure preuve que nit dina bëgg te du man ndax loolu nga may laaj soo ko mënoon doo ma ko laaj mais noonu nga comprendre sa bopp ci ne bëgg nga te mënoo pourquoi yow mënoo comprendre ne man bëgg naa laa jàppale te mënuma loolu ku ñëw ci man laa lay wax su ma yoree nag moom lu ma yor dinaa ko joxe parce que du ma denc ah Ousseynou ma sëriñ ba fa soxna Nafi Ngom Keïta nekkee maa fa njëkk a dem ma ñëw ñu rafet lu ñëw bi ndax nee na spontanément daaw ñu gis mu demee nii mais plateforme bi ñuy jëlee ah déclaration de patrimoine yi pareegul woon moom ak monsieur Ndiaye ñu ne man lii rafet na ba nga xam ne bu ñu paree danañ ñëw Thiès def conférence de presse wax ko ñëpp ñu dégg doog a jël sa déclaration man leen jaru ko ku am patrimoine mooy déclarer patrimoine man je n'ai aucun patrimoine et je n'en aurai pas waaw j'ai fait le choix man c'est mon choix d'avoir patrimoine zéro. yaa ngi dégg maanaam yére yi nit di ma may sax wala ma jëndali ko sax damay wax sama doomu bàjjen yi ne leen yéen ko moom waaw ku ñëw ma jox la ah bu ma naree génn bu ma jaaxle woo samay xarit te bu dul dara sax Ousmane mii nit ñi xamuñu ko mais bàyyi la ci man ndax lan ndax tuddee na ma doom ah, gis nga àdduna dañ ko war a rafetal dañ ko war a rafetal te xam ne forcé yenn yi demul fenn kii nga xam ne moom la ñu ubbee waxtaan bi di son suñu yonent bu tedd ba salallaahu alayhi wa sallam nga xam ne yàllaa ko fi yónni war koo mën a jox lu ne war koo mën a yombalal lu ne lan la def mais daf ko bàyyi mu nekk ci ay jafe-jafe ngir jàngal nit ñi te ñu ne ñun moom lañu war a roy pourquoi bu ñu déggee responsabilité du ñu jàng ci moom te moom ñu ni day miinu way ñàkk ña miskin ya kenn du ko daw di raay jirim ña di toog ak jaam ña di gaar dàllam te dig du ko jam di gaar mbalaanam di solin daax di xiif di mar di leb te du am moom yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waa mais ñun ñooy kan ah ñun ñooy kan ba jàpp ne ñun ñoo moom nit ñi nit ñi nag ñoo toll foo xam ne ñoo war a jël seen responsabilité kon li ma leen di woo tey li ma leen di woo tey mooy ñu jël sunu ay matukaay ndax dans dans quelques mois matatul juróom-ñaari weer bu ci yàlla àndee askan wi dañ leen woowaat ngir ñu tànn bu boobaa askan wi ñooy war a tànn ndaw yeleen di toogal ca foofu ñuy tuddee pencu ndaw réew mi te du pencu ndaw réew mi pencu ndawu askan wi la maanaam mettre l'accent sur le peuple plutôt que sur le pays foofu loolu moo fa ëpp sens puisqu'on est en train de parler de représentation les gens représentent plus le peuple foofu que le pays le pays est représenté par ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu nekk tey ci gouvernement nekk président ñore gouvernement ak yeneen banqaas yi nga xam ne ñoom ñoo ci juddoo donc ñun su ñuy wax représentant nous parlons des représentants du peuple dañu bëgg nag ñoo ñu war a représenter le peuple ñu dooleel leen ñu am kàttan boo xam ne suñu demee assemblée nationale dañ fay ëpp ñun jóguñu dem élection pour faire de la participation symbolique jóguñu dem élection pour am fa benn député wala ñaar dañu jóg di dem élection bëgg askan wi jël ndam lii ndax nag ñu demee ci benn jataay ñetti nit nekk fa mooy ki toogal bennoo ki toogal manko ak ki toogal askan wi mais ki toogal askan wi pourquoi muy ñax te askan wee joxe foofu lañ toll ma leen di xamal nag ni ko Amet waxee ñun ñi ngi jël engagement bu clair xam nañu ne rôle assemblée nationale du faral président du contre président rôle assemblée nationale du faral président du contre président rôle assemblée nationale c'est de représenter le peuple rôle assemblée nationale mooy toogal askan wi waxal askan wi te askan wi ci boppam dafa jaadu dafa jot ñu taxaw di ko représenter ni nu ko war a représenter bu boobaa ñun dinañ woon ñépp ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal ci Sénégal ne jox nañu leen cër bërki démboo njaay ñépp xam nañu ne bu ma daan dem di def li ma gëm ci wàllu diine en tant que personne damay dox dem Touba. booba du ma maire ba ma nekkee maire def naa ko parce que loolu c'est ma liberté mënuma jóg di xeex pour que sénégalais am seen liberté ba pare te du ma sàmm sama bopp sama bos donc ni ma amee respect ci liberté wu nit ñi noonu la ñu war a respecter sama bos chrétiens yi dañuy dox di dem boobu nit ku ci wax dara dañ leen ci respecté di leen ci jàppale ndax passif bi ñu wone ci liñ gëm man dox jëm Touba laa gëm tant que maa koy man dinaa ko def incha allah bu nekk naa maire def ko su ma nekkee président assemblée nationale dinaa ko def su ma nekkee président la dinaa ko def bu soobee yàlla mais est-ce que dafa tee est-ce que dafa tee ma jox keneen cër pourtant nit ñu bëri xamuñu mais ba ma nekkee xale te Tivaouane laa jëkk a dox ñaari yoon. yemul foofu bi ma paree ci màggal bi gàmm gi ñëw damaa dem fekki Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin teerul ko ganam muy président de la république gungeel ko ganam daf maa tee doon fas fal askan wi daf maa tee gëm li ma gëm daf maa tee ñàkk bokk ci kuréelam loolu amul mais parce que quand on est dans un pays où il y a des institutions le devoir de képp ku ñu dégg institution c'est de respecter les autres institutions ndax képp koo xam ne gis ngeen saxaar gi ni muy dem noonu la fal askan wi di dem xam nga xam nga day dem te dara du ko téye bu ko neexee taxaw su ko neexee raam su ko neexee teel su ko neexee waaxu su ko neexee daw engagement yi ñu waroon a jël yi ñu waroon a jël nañu leen li nga xam ne moom lañu bëggoon ñépp comprendre ko mooy il est temps que le peuple s'organise à travers les organisations yi ko teewal te bi ci jiitu tey mooy fal askan bi ëllëg su suñu borom dogalee doole boobu ñuy sàkku bëgg koo am ca assemblée nationale su ko suñu borom dogalee ah gouvernement bu boobaa suñ koy forme ci suñu waaw lay jaar ndax tey am na lu ñu leen yéene di ko jéem a defal fii ci Thiès mais mooy yi manqué mais ëllëg suñu amee kàttan ba ca war ca assemblée nationale am ko ci guvernement bu boobaa defe naa li ñu leen yére danañ gën a am kàttanu jëfe loolu nag moo waraloon vraiment tey jii ñu wuy si Ousmane ànd koog mbokkam yu baax yi ànd kook dëkkandoom yi ànd kook am di jàmm yi rafetlu tamit nag niñ la wuysee ndax mobilisation bi ba waxtu wi ah am na solo te yaakaar naa ni yaakaar naa ni bay sa wewu tànk nii ñu ko defee fii noonu la ñu bëggee gox yi ci dëkk bi fenn fu ci nekk ñu jéem a identifier ñoo xam ne c'est de vrais représentants du peuple koo xam ne mën naa taxaw koñam di wax te du làqatu koo xam ne mën naa dugg ci kër gu ne te du làqatu te kenn du ko sànni xeex bu boobaa ñu rassembler ñooñu parce que ñooñu ñooy les vrais représentants du peuple yu tàmbali woon di représenter te kenn falu leen woon bu boobaa ñun Ousmane ñii toog ci ginnaaw ak ñeneen bu boobaa dinañu jëlaat doole ji jox ko ki nga xam ne moom mooy askan wi mu jël ndam bi ndax loolu lu war a nekk la jërëjëf